Luk saar ñaar benn bis yeesu doon jàngal nit ña ca kër yàlla ga di leen yëgal xabaar bu baax bi saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya ñëw ne ko wax nu ci ban sañsañ ngay defe yëf yi walla kan moo la may boobu sañsañ sañ tënt leen ne man itam dinaa leen laaj lenn waxleen ma la yax ya daan def di sóob nit ñi ci ndox fu mu ko jëlee ci yàlla walla ci nit ñi ñuy waxtaan ci seen biir naan bu nu nee ci yàlla dina laaj lu tax gëmuleen ko kon te bu nu nee ci nit ñi mbooloo mépp dina ñu nu sànni ay xeer ndaxte gëm nañu ne ya yeneent la woon noonu ñu tontu ne xamuñu fu mu ko jëlee yéesu ne leen kon man itam duma leen wax ci ban sañ-sañ laay defe yëf yii noonu yeesu daldi wax nit ñi léeb wii amoon na nit ku jëmbat toolu reseñ batale ko ay beykat dem tukki tukki bu yàgg bi tool bi ñoree nag mu yónni surga ci ñoom ngir jot wàllam ci meññeef gi waaye beykat yi dóor ko ay yar dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yónnewaat beneen surga ñu dóor ko moom itam toroxal ko dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yeneeti ñetteelu surga ñu gaañ ko dàq ko boroom tool bi daldi ne nan laay def nag dinaa yónni sama doom sama reeni xol xej na ñu wek ko moom waaye bi baykat yi gisee doom ji ñu ne ci seen biir kii moo war a donn tool bi nan ko rey moom ndono li ñu génne ko tool bi nag rey ko noonu yéesu laaj leen nu leen boroom tool bi di def nag xanaa ñëw rey baykat yooyu dénk tool ba ñeneen bi yeesu waxe loolu nit ña ne ko yàlla tere waaye yeesu ne leen jàkk daldi ne kon nag lu baat yi ci mbind mi di tekki doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ képp ku dal ci doj woowu damutoo te ku mu dal ci sa kaw rajaxe la xutbakat ya ak saraxalekat yu mag ya ñu ngi doon wuta jàpp yéesu ca taxawaay ba ndaxte xam nañu ne ñoo tax muy wax léeb woowu waaye ragal nañu mbooloo ma noonu ñu koy yeeru daldi yónni ay nit ñu mbubboo njub sas ñu fexe ko jàpp ci ay waxam ngir jëbal ko boroom réew mayor kilifteef ak sañsañ ñu daldi ñëw ci yeesu ne ko kilifa gi xam nañu ne li ngay wax te di ko jàngale lu jub la amuloo parlàqu waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax nu ndax jaadu na nu fay buur bi sesaar galak walla déet waaye yeesu xam na seen pexe ne leen won ma posetu denariyon kan lanu ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu mu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom noonu mënuñu ko woona jàpp ci waxam ci kanamu mbooloo ma ñu waaru ci tontoom ba wedam noonu ay nit ñu bokk ci sadduseen yi ñëw ci moom sadduseen yi nag ñoom wedd nañu ndekkite li noonu ñu laaj ko ne kilifa gi musaa bindal nañu ne ku magam faatu te bàyyiwul doom ak jabaram kooku war naa donn jigéen ji ba giiru magam amoon na fi nag juróom ñaari góor ñu bokk ndey ak baay taaw ba takk jabar faatu te bàyyiwul doom ñaareel ba takk jigéen ja def noonu ak ñetteel ba ba juróom ñaar ñépp faatu te bàyyiwuñu doom gannaaw ga nag jigéen ja faatu ci ndekkite li nag kan ñoom moo war a donn jigéen ja fekk ku nekk ci juróom ñi mas na koo takk yeesu leen ne ci àddina si góor ñi ak jigéen ñi dañuy séy waaye ña ñu àtte ne yeyoo nañoo bokk ci dundu ëllëg ak ci ndekkite li kenn du am jabar kenn du am jëkkër dafa fekk ne mënatuñoo dee ndaxte dañuy mel ni malaaka yi ay doomi yàlla lañu ndaxte doomi ndekkite lañu te musaa sax wone na ne néew yi dinañu dekki ci saarum garab si foofu musaa wooye na fa boroom bi yàllaay ibrahima yàllaay isaaxa di yàllaay yanqooba kon nag nekkul yàllaay ñi dee waaye yàlla ñiy dund la ndaxte yàlla tax ñépp di dund ci kaw loolu ay xutbakat ne ko li nga wax dëgg la kilifa gi ndaxte kenn ci ñoom ñimeetu koo laaj dara noonu yeesu ne leen lu tax nit ñi di wax ne almasi bi mooy sëtu daawuda ndaxte daawuda moom ci boppam moo ni ci saboor borom bi nee na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam gannaaw daawuda nag wooye na ko borom bi nu muy nekke sëtam bi ko nit ña fa nekkoon ñépp doon déglu yeesu ne ay taalibeem moytu leen xutbakat yi dañoo bëgg di doxantu sol ay mbubb yu rëy te ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ci pénc mi ci jàngu yi toogu yu féete kanam lañuy wut te toogu yu yiw lañuy taamu ci reeri xew yi ñu ngi lekk alalu jigéen ñi seen jëkkër faatu di ñaan yàlla ay ñaani ngistal yu gudd seen mbugal dina gën a tar